mais man sa relation ak Bouba Ndour daal man moom moom moom naka la quoi moom. non non Bouba nag sama gaayan la quoi. sama waay ju baax la sama nit la <laughs> ñu ngi xamante ci musique moo ma produire sama premier album solo bi fu malaat génnee ba pare. Mm-hmm. daf ma repéré woo ma téléphone ne mu buggoon naa ñu def benn compilation ak yeneen rappeur ak Viviane. mu ne dama bëggoon nga defal ma benn woy bu tudd taximan dama mhm. bëgg nga bind ci taxi ñu commencé moo mhm. commencé bind leneen mu ne ma non malal defal ma ci affaire Fou Malade mhm. bul bind beneen affaire dama buggoon bind texte bu sérieux quoi mu ne ma non bindal bind bindal comme ni ngay bindee quoi parce que loolu mooy sa direction artistique donc bokk na ci ñi ma won sama yoon ci wàllu ci ci wàllu musique bokk na ci quoi mm-hmm. et yàlla def aussi ñu tukkandoo fu nekk si àdduna demandoo Amérique demandoo France mm-hmm. Italie Angleterre mm-hmm. Espagne lu muy def tamit dem nañ ba liggéeyatuñu musicalement buy def dara il ma demande mon avis donc su ma doom yi ma ngénte yëpp buuba bàyyi na léppam ñëw lu ma xewle sama kër ñëw na et sur des questions très très intimes donc dañ ciy waxtaan moom suma suma xarit la te en même temps euh, souvent mm-hmm. nit ñi dañuy juger nit ñi par rapport ak seen mag wala par rapport ak seen rakk bu siiw mm-hmm. wala nga bëgg a juger mm-hmm. jabar waali par rapport à waali fekk en fait bokkuñ dara nuroowuñ dara Bouba est une personne extraordinaire loolu loolu lu ma jàpp la nit la aussi boo xamante ne il a beaucoup de respect pour euh, nit ñi muy liggéeyandoon nit bu nite la nit bu nit bu baax la loolu laa xam si moom waaw même man xam naa bu ku baax la quoi mm-hmm. man parce que dañ ne bu ñuy diw baax na ñu ne ndax mbokk yaa ko wax mm-hmm. vraiment nit ku ku set la quoi waaw ku baax la quoi moom jantal voilà naa mm-hmm. ndaanaan la quoi kontaan naa bu baax a baax malal léegi nag malal li ma jaaxal ci moom saa yu ñuy tase rek weeru koor la ñuy tase <laughs> bi mooy quatrième fois ah. saa ñu tase ci àdduna weeru koor lay. Ah ah, tase nañ weeru koor man ak yow centenaire Gibraltar. Mm. yàgg na ak ñoom Moussa Sène Absa. Mm. ñu nekk ci benn tournage. mais yow grand waaw boulevard des passions. voilà grand looy wax nii. kon yéen na fa surux. kon grand loolu yàgg na ay deux mille cinq. ay deux mille quatre. deux mille quatre. après ñu présenté waat. mais lu euh, foofu non ndeysaan waaw ah, dof complètement nag boobu. dëgg la waaw hôpital Fann waaw. <laughs> boobu yëpp maa ngi ci biir bagage yi toog. non grand. waaw boobu non bi daje nañ Allemagne fan yële ndeysaan. dëgg la ñu ngi fa ak jantal jantal grand ngi noonu tamit quoi. Uh-huh, ñoo bokk benn kër nag. jantal grand grand bu baax waaye. waaye Moussa Sène ab sa. artiste quoi voilà moo ma def nii moo ma def. non jantal jantal grand jantal grand. voilà alors kon euh, naa rek ñu ñu ñu continuer suñu émission mënul ñàkk ay retrouvailles la ah, n'est-ce pas <laughs> alors mi ngi noonu euh, kon euh, fa la ñuy jaare rek xaw nga laal li nga xam ne mooy sa carrière musicale alors euh, dañu gis ne aussi am na émission boo xamante ne yaa ngi koy yaa ngi koy animé émission bi nga xamante ne mi ngi tudd after ndogu n'est-ce pas ah. gis nañ ne yaa ngi koy animé depuis un certain temps di si invité ñi nga xamante ne ñooy hip hop man yi rappeurs yi ñuy ñëw ku si nekk di wax sa xalaat émission bi naka naka naka naka la la dikkee nga toog xalaat ko et euh, créer émission bu mel noonu nga xamante ne vraiment dañ si invité ñi nga xamante ne ay rapport la ñu ngeen bokk li ngeen di def. yes euh, fi ñuy amalee émission mu ngi tudd Guédiawaye hip hop. Mhm. Guédiawaye hip hop benn centre la. Mhm. Euh, de formation et de réinsertion au métier de cultures urbaines. Mhm. ñu ngi ko créé en 2010. sunu benn xarit. bu tudd Malick Sarr yàlla na ko yàlla yërëm. amiin amiin qui deux mille quitté en 2018 moo amoon xalaat bi. Mm-hmm. bi mu amee xalaat bi mu ñëw ñu waxtaan si ñu créé ko wut ay partenaires ñu tabax. Mm-hmm. géejawaay nag ay ku wax ay sëñ Assane marché bu bees bàyyi laay xam na ni délinquance am na fa. Mm-hmm. te bëriwul ay jumtuwaay ay espace d'expression mm-hmm. te ndaw ñi aussi bëri nañu xarañ ci wàllu art ci wàllu mm-hmm. sport ci mm-hmm. wàllu leneen ak leneen ñu ne bon pourquoi pas créer une association toppandoo li matadoor def Pikine parce que Matador moo ñu ëpp expérience ci domaine bi moom mu ngi ci depuis plus de quinze ans ñun ñu ne nañ ko roy ñu créer affaire bi bi ñu créer affaire bi nag ñu commencé dimbali ay ndaw di leen tàggat ñuy composer musique di leen tàggat ñuy fecc jàng fecc di leen tàggat ci art li ko tax a jóg ci culture hip hop di leen tàggal ci tàggat ci graffiti ci graphisme ci photographie ci audiovisuel liggéey boobu noonu yëpp ñu koy def at bu joj it yàlla di ñu dimbali ñuy yóbbu ñaari ndaw France recevoir ñaari ndaw également yu jóge France muy programme de réciprocité pour ndax suñuy ndaw aussi dem yokk seen xam-xam mhm. Euh, mën a ubbeeku ci àdduna ren sax booy bi ñu yóbbu mu ngi dëkk mu ngi dëkk Radaway mu ngi dëkk en face euh, mu ngi dëkk en face terrain basket bi nekk Radaway mm-hmm. kër ñoom kër ñoom kër ñoom Pecos waaw mm-hmm. donc mm-hmm. Euh, loolu la ñun at mu jot nag dañuy dañuy xool dañuy tëgg programme ci sunu programme depuis trois ans maintenant after ndog weeru ci dañ koy def ci weeru koor parce que dañu seetlu ni weeru koor bu jotee artistes yëpp dañuy croiser les bras presque comédiens yi rek ñooy fonctionner te bu ñuy fonctionner dinañ tourner seeni affaire bien avant bien avant ça nous on se écoute mm-hmm. pourquoi la culture ne doit pas parler pendant mm-hmm. le mois de Ramadan dañ ko bëgg a def une religion mais non mm-hmm. donc ñu ne nañu amal ay conférences interactives sur euh, di waxtaane hip hop bi woo acteur u hip hop bi ñu wax seen xalaat ci jàmmu réew mi wax seen xalaat ci violence wax mhm. seen xalaat ci économie mhm. wax seen wax seen xalaat ci bonne gouvernance mhm. wax seen xalaat ci inscription wu ndaw ñi euh, démb lañ ko tëj euh, mu nekkoon ay waxtaan yu am solo démb ñu amoon ci benn waxtaan bu am solo ak Souleymane Faye ngaa ko blende bëgg si bëni rakku ñoom dëggati liñ doon waxtaane mooy euh, Euh, mooy euh, gloire célébrité deux points gloire euh, blessure et espoir Souleymane fay amal ñu fa waxtaan bu am solo li ñu ci jublu rek mooy il faut que des espaces comme ay géejawaay ay zones yu mel ni géejawaay yëmbal qui sont éloignés des opportunités. Mhm. ñuy fexe di fa indi ay opportunités pour ndaw ñi. Mhm. di mën a teewlu mhm. di mën a gis di dund gis di envie roy di am envie roy ko. di mën a gis Ngaaka Blindé di am envie roy ko di mën a gis ay Mia gisee di am. envie waaw waaw jaxase mag ñi effectivement pour waxtaan sur des thématiques ba pare. waxtaan c'est important des fois nit ñi dinañ nekk ci ay dinañ nekk di def dara. nit dina dugg ci théâtre fekk fondamentalement. du xam histoire bi lan la mm-hmm. du xam lan lan lan moo nekk ci biir a biir et il est mm-hmm. important mm-hmm. de sensibiliser à partir de l'art sensibiliser ndaw ñi mobi mobiliser leen ba pare jox